auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala seydina wa mawlaana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou yéen mbokk àdduna bi rawatina mbokk Sénégal seen mbokk Serigne Bass Bamba xéewal moo dellusiwaat ñu waxtaan ak yéen ñu ci ponk yi nga xam ne ci ñetti ponk yi nga xam ne moo xew fii ci senegal maa ngi wax ak nag ñetti nit yoo xam ne ñoo nekk ci senegal wax ji nag li ko waral mooy coow lii nga xam ne tey jii moo lëmbe réew mi mooy coow lii nga xam ne moo am ci réew mi nga xam ne te mënoon naa ñàkk ndax li may faral wax dañoo nekk ci weer woo xam ne weer woo xam ne day lakk bàkkaar dañoo nekk ci weer woo xam ne fukki weer yi ak ñaar fukki weer yi fukki at mi fukki ak fukki weer la ak ñaar léegi ñu ñu dund fukki weer ak benn mu des benn weer boo xam ne yàlla dañu koo tegal pour ñu ciy tuub bàkkaar yi nga xam ne comme bàkkaar mënut a ñàkk pour ñu ciy tuub ay bàkkaar yokk suñuy jaamu yàlla yàlla def ci ay xéewal yoo xam ne nag loo ci def dañ la koy fulal maanaam day lakk bàkkaar yi nga def yépp ci fukki weer yi ak benn mu nekk weer wu am solo weer woo xam ne yàlla moo ko téyel boppam yàlla moo koy fayal boppam weer woo xam ne yàlla day tënk seytaan yi maanaam tënk ko ba dootul mënal kenn dara ndax lu ci waay def rek yow yaa ko def ci sa coobare bopp mais seytaan yi sant la ko léegi weer lan lañ ci def ñi nga xam ne mooy ñetti pàcc yi may waaj a waxal pàcc bu njëkk bi mooy Sénégal dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent bi yëpp ay jullit la maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom ñoom ñëpp ay jullit la ñu jël cinq pour cent bi ñu ne beneen diine yi lañu yore muy suñu mbokku catholique yi ci ñoom laay njëkkee. bu ñu waxantee dëgg rek suñu mbokk catholique yi moom seen mbir yëpp teg nañ ko ci yoon ndax mosoo fee gis ñaari feetu Pâques mosoo fee dégg ñaari làbbe yi xëccoo ku nekk naan maay jiite mees bi mosoo fee dégg église boo xam ne dañ koy tabax jël ay di ko yalwaanal mosoo ko fee dégg te it mosoo leen dégg ci benn njombe te it mosoo gis benn catholique boo xam ne mu ngi naan sàngara di màndi di daanu ci digg mbedd bi te it nañu yem nañu fi ñu war a yem ñu ngi jaamu yàlla ci niñ ko mënee jàmm kon ñoom gàcce ngaalaam a leen ci génne mu des beneen pàcc bi ñaar ñaari pàcc yi ci des muy jullit jullit na dafa am lu nekk ci biir jullit muy naafeq ndax naafeq mën a ko génne ci keneen ku dul ci biir jullit rek nga ko mën a génne léegi jullit yi ñaata lañ Sénégal naafeq yi ñaata lañ Sénégal foofu nag la lënt-lënt bi nekk waxtaan yu bëri yu ma def yoo xam ne def naa ko damay faral di wax ne Sénégal ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ñoo réeral ñi nga xam ne amuñu xam-xam te loolu firnde gi ñëw na ndax kii di Idrissa Seck yaakaar naa ba ko nit ñi xamee ba léegi fépp fu mu waxee bala muy daaneel dina jël référence dina jël maanaam tegtal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu jël ko ci yàlla suñu borom foo toll da ngay dégg mooy ay aay yoo xam ne te ba mu ko dalee wax ba léegi ëpp na ñaar fukki at kenn mosul ne Idrissa Seck mu wax yàlla waxu ko kenn musul wax ne dafa juum kenn musul wax ne dafa damm araf waaw léegi lu man ñaar fukki at ngay wax ay aaya di tegtaloo ci alxuraan maanaam di ko yàlla sant ndax yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy dem. dane maa ngi leen bàyyi ak ñaar ñaar yooyu nag ku mu waarul dootoo waaru ñu ne ko Seydina Muhammad ban ak ban mu ne dee ak alxuraan jii nga xam ne maanaam dafa mat sëkk bañ tudde ko kaamil léegi moom ak loo mën a yëngu ci àdduna ndax dégg naa ay nit yoo xam ne naan Idrissa Seck dafa génn domaine am Idrissa Seck jullit la te référence am mooy alxuraan lan la war a def bu dul di tegtaloo maanaam di xool ci alxuraan di ci wax léegi bu ñu jëlee politiciens yi def leen ñoo xam ne dafa mel ni politiciens yi du ñu ay ndax bépp politicien bu nekk ci àdduna bi même waat bi ñuy wax boo nekkee président da laa war a tegloo kaamil ndax boo waatee te waatoo ci yàlla def nga bàkkaar nan la ñuy waatee dinaa def nangam dinaa def nangam dinaa def nangam saisir loolu mooy lan loolu mooy loolu waat moo tax lu ñuy wax mën nañ cee génnaat mais bu doon jullit nga. ñu tegal la kaamil nga teg sa loxo waat bu dee yéefar nga ñu tegal la bible nga teg ci waa am na yoo xam ne boo ko waxee di ko respecté waa léegi ñi nga xam ne am nañu xam-xam xam nga Sénégal ku ne xam na ne booy wut borom xam-xam ba ñëw Sénégal bu yebal woo ñëpp jàng nañu xam nañu li yàlla wax waaye dañuy def lu leen neex ndax coow lii ku ko dégg xam ne waxi def lu la neex la coow li nag fi mu tàmbalee man dama ko topp. dama topp soo gisee mën naa jee wax nii damaa topp coole fi mu tàmbalee waaye Idrissa Seck ci ay waxam dégg naa ci mu ne damaa dem ci imam màkk bi di waxtaan ak moom ma laaj ko waxul ma ne ko lii moo am ma laaj ko mu poose ko ay question est-ce que l'islam am na foo xam ne tere na fa nit posé ay question di laajte l'islam terewu ko fenn newul lii la newul laa la dafa laaj ay question ci daaneel ba mu ne Palestine ak Israël bu ñu ñëwee fii senegal dinaa leen wax fan la la war a aji ji waa Palestine ak Israël bu ñu diggoon ñëw fii mu ne leen màkk la ñu war a ajee lu ci waay man kon dañoo dugg ci xelu nit ki jiitu ko ca la muy wax te xamuñu lan la ci nam bi ci des mooy tey coow li fa mu jógee mi ngi jógee ci ki ñuy wax Bamba Ndiaye Bamba moomu Hmm. fa la coow lu jógee te li ma leen xamante ne dafa am ñoo xam ne fii Sénégal duñu ay référence ndax Bamba Ndiaye moomu boo toppee parcours am maanaam parcours bi mu bi li xam ne moom la def fii ci la ci la jaar ci politique ba egg si fi mu egg si ci ñaata parti la jaar. Bamba moomu tuddee woon na fi Macky Sall jimboor yi jamono yi passé noonu Bamba Ndiaye moomu imam Ali Ndaw mii nga xam ne ñu ngi koy àtte te yàlla rek xam li mu def ñun xamuñu lan la moo tax nekkoon na fii di ko xeexal di ko waxal lu ne ba tuddee ci Macky Sall jimbóor yi jaar na ci Ablaye Wade jaar na ci Malick Gakou daanu si waat ki nga xam ne moom la doon xas naan ko jimbóor te Bamba Ndiaye moomu xaritu Sidi Lamine Niass la te ñoom ñaar ñoo ubbi coow bi léegi Sidi Lamine Niass bi nga xam ne nee na ci gémmiñu boppam Idrissa Seck woo na a ko mu ne ko du ma a déglu waaw pour lan du ko déglu Idrissa euh, euh, Sidi Lamine Niass moomul diine ji yàlla moom moom diine ji comme yow borom xam-xam nga nit juum na ci diine ne la wëlbatiku woo la pour ngeen waxtaan yow sax yow yaa ko waroon a woo ndax même sunu zaahir bii mosoo gis ku dem tribunal ñu tëj la te laaj ñu la mosoo gis ku dem tribunal te kon ñu condamné te laaj ñu la atteg l'islam képp koo xam ne tey jii ñu ngi lay atte ci l'islam dina la teg laaj la nga tontu sa tontu bu doyee ñu bàyyi la sa tontu bu doyul ñu jëfandikoo li yàlla wax ci islam waaw kooku nag dem ba ki nga xam ne juum na jël téléphone am woo la mais déglu ko te yow yaa ko woo bu dee yàlla rek moo tax waaye dafa am leneen lu lalu ci biir boo gisee ñi génn wax ñëpp xam nga ne am na leneen lu lalu ci biir lépp nag ci xam yàlla ba pare ñeme ko damay wax ne Sénégal yéen ñi may déglu ñëpp nag ku ci nekk na wéet ak sa conscience dugg sa biir néeg nga toog nga xalaat sa digganteeg yàlla ne ba nga juddoo ba léegi mosoo def lu la yóbbu safara Sénégal gépp laax bàyyiwuma kenn ku nekk na dugg sa biir ne nga tëj sa buntu nga dawal sa digganteeg yàlla xool ba nga commencé dund ba léegi ndax mosoo fee tooñ yàlla tooñ bu rëy boo xam ne yàlla mën na cee sukkandiku tàbbala safara léegi ñu wëlbatiku ñaata nit ñoo jàpp set Seck génne ko ci diine ji ñaata nit ñaata nit ñoo ko def ndax ku la def yéefar tàbbal na képp koo xam ne nee na yéefal nga na la safara kon ñoom jël nañ ko tàbbal nañ ko safara léegi est-ce que ñoom moom safara est-ce que ñoom yàlla ne leen a wax ne leen yéen àddina ngeen jëm kan moo mën a yëkkati sa loxo ne yow mi àddina nga jëm fii Sénégal kenn ñu ñëpp ku ci nekk yaa ngi xalaat boo faatoo dañ ngay fekk ci biir bàmmeel moo tax ku ci feebar maanaam di bëgg a dee fu nekk nga dugg fay faju ndax xam nga ne xamoo lan fay fekki ndax yàlla dafa am loo xam moom moo ko téel boppam ndax ci gàttal rek am na ki nga xam ne am na koo xam ne dañ koo rey ci lislaam bi ñu ko reyee ci lislaam ki ko rey ñëw di tuub yonent bi dafa dumóoyu yàlla ne ko borom xam xam nañ kii may wax yàlla ne ko soo gisee may wax dama bëgg mu leer yi ñuy jàngul yàlla ne ko tuub tuub moom yow nangu tuub nga jëlal recevoir ko nga nangu tuub gi jox ma ko ndax man may nangu tuub bi te kooku dañ ko mën di jégal amul lu nit defoon ci lislaam même ñi jiite lislaam boo toppee xisa Seydina Omar am na yoo xam ne yu bëri def nañ ko ci lislaam dañoo mun di dem ba jiite lislaam waa seen mbokk jullit ngeen jàpp ko di ko xas dëkkal ko yéefar ñii di ko wax farmason nga ñii di ko wax naan ko juif nga ñii naan ko doo jullit te lu mag ay ñaar fukki at mu ngi génn di wax te musul même bu fekkee li mu wax sax du yoon mais war nañ ko ko mën a jéggal te sax jéggaluwul mais moom mu toog ne Sénégal gépp ku ci nekk maa ngi sukk sa tànk di la jéggalu kon wax ji foofu la waroon a yem keroog mu waxee loolu ba mu jéggaloo rek fa wax ji fa ah, fa la waroon a kon am na lu laxu si caw li lan moo laxu si caw li nag dañoo bëgg a fekk ab jullit fekk ab doomu aadama boo xam ne yàlla moo ko defar ñu taxaw bëgg koo yàq yàq doomu adama kese nañ ci jublu ndax Idrissa Seck damay wax ne bu fekkoon Macky Sall mi xamal na ko dara ci lu jubadi mi ngi ci biir kaso ndax ñi ma xamal dara jugal na leen ci biir kaso ndax Abdoulaye Wade moo ko njëkk jàpp dem ba ci biir mu setal ko ñëpp dégg nañ ne am na euh, Idrissa Seck may nañ ko non lieu kon setal nañ ko topp ñu ko dara léegi ña nga xam ne nag ñu ne loolu dugg naan sàcc la sàcc la ñoom ñëpp ku ko ci wax am nga bàkkaar ndax ku la ne lu mu sàcc doo xam mun a wax lan la sàcc te Sénégal dañ koy teg tribunal bi pour ñuy wax ñi ñi sàcc ni ñi sàccul ñi tooñ ak ñi tooñul comme tribunal bi ñoo ko jàppoon ñoo ko jàpp setal ko kon kenn amatul droit ne ko sàcc la muy benn te leer na leen yéen ñii Macky Sall mii su xamaloon Idrissa Seck dara kon mi ngi ci biir kaso bi léegi wër nañu xamalul ko dara ci li mu doon dund ci biir Sénégal léegi lan la ñuy def jaar nañ ci diine ji xam nañ ne nitu diine la nitu di tax ma ne nitu diine la nag man xawma ma ko kii kaamil alxuraan la ndax Sénégal boo waxee ñu ne kii dañ koo jox dara wala dañ koo ger wala xaritu Idriss Seck la wala ci parteem la bokk kii kaamil alxuraan la damay wax ne billaahi wallaahi taalaahi Idriss Seck mosuma koo gis lu dul seen ko wala ma gis ko télé xaw ma fu mu dëkk xaw ma numéro téléphone am musuma wax mu wax musuma wax ak moom musuñoo tegante bët man ak moom musum toog ma toog kaamil baa ngi nii maa ngi koy waat di ko seedal yàlla suñu borom li tax ma def ko nag seedal ma ko sax nit yàlla laa koy seedal ndax soo ñu ne dañ ko jox xaalis wala koo xam wala nangam yooyu yëpp yàlla def na dara amu ci dëgg yàlla moo ko moom même mu dalee ci sa waajur wala mu dal ci sa sëriñ nangul ne lii dëgg léegi xoolal coow lii weer wii weeru jéggalu la te ñu ñëpp def nañ ay bàkkaar te ci weer yoon dañ ko waroon jéggalu tey talatuñu place bi nga xam ne moom lañu ñu waroon jox yàlla ndax weer bi yàlla kese la jàng alxuraan saraxe laabirante dimbalante ku nekk jàpp la sa morom weer wi loolu la woon est def nañ loolu fukki fan yu njëkk yi nga xam ne li ci nekk ci yiw xoolal fukki fan yi Idrissa Seck la ngay dégg maanaam place bi ñu jox yàlla bi muy bi ñu waroon jox yàlla dañ koo jël jox ko Idrissa Seck ci loo xam ne dara leeru leen ci jàpp doomu aadama dëkkal ko fu nekk léegi nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal dama leen wax ne leen dama bëgg ngeen delluwaat seen xel ci yàlla suñu borom nga xam ne yàlla bu la tegee ci bopp jaam ñi da ngay wax dëgg di def dëgg ndax ñi nga jiite gënoo leen yàlla jël la teg la ci bopp jàmm ñu lay sukkal di la raamal ñooñu da leen a war a teg ci dëgg da war da nga war a yéemale ñëpp ku ñëw nga wax ko yàlla wax sant ko li yàlla wax mu def ko nga tere ko yàlla sant nga tere mu def ko kon lan mooy seen liggéey kilifa diine yi nekk Sénégal dañu waxante dëgg rek yàlla tax wax ji amul raay raay amul nëbb nëbb damay faral di wax ne kilifa diine yi am nañu liggéey boo xam ne dañ ko fee bàyyi maanaam dañoo am seen waar bàyyi ko fi dem di bay leneen daa delloo si tuuti <coughs> bu njëkk bi mooy Sénégal am na usine bu ñuy defar sàngara am na usine boo xam ne dëkk yu mag yu bëri boo fa demee boo duggee ci ci bitig yi wala station yi wala ci baar yi ñu jaay la sàngara te usine bi koy defar mi ngi fii senegal dëkk boo xam ne sëñ Bamba mi ngi fi maam El Hadj mi ngi fi Baye Niass mi ngi fi Baye Laye mi ngi fi. maanaam sang yu baax yépp ñu ngi fi dëkk boobu ñu jël dafa defar sàngara di ko jaay te sàngara mooy ndeyu ñaawteef lépp loo a def jullu ñaawteef sàngara moo est-ce que ki kilifa diine dégg benn kilifa diine te ñoom ñëpp pour man koo wax ne sàngara soos na dakk Sénégal sàngara loolu fi am kilifa bu ñu daje woon Touba wala ñu daje Tivaouane wala ñu daje Ndiassane ne sàngara bu mu jaayee ci Sénégal sàngara loolu fi am est ngaa dégg benn kilifa diine bu ci sàngara si te usine baa ngi fii Dakar fii bañ nag ba am na usine yu ndaw yoo xam ne sax ñu ngi ci dëkk yi ñuy defar ay sangara yoo xam ne dégg nga fan yii pass ñu ne élèves yi dañuy naan dañuy jënd sangara boo xam ne ñaar fukk lay jar est-ce que dégg nga benn kilifa dina ko ci wax amul kon bàyyi na seen waar dem di fay beneen waar te lii ñuy seetaan ndax lépp looy seetaan boo fekkee ñaar ñuy xeex nga toog di seetaan ñuy duma kenn gi néewal ko doole nga toog di seetaan da far kon lii mën nañ koo dindi am nañ lu leen doy ci loolu bi ci des mooy PMI bii ñuy gérer maanaam carte xaalis bii nekk ci biir réew mi ba ci SMS yi nekk ci télé yi carte xaalis bii nga gis nii wala SMS yi nga gis lépp carte la wala ay pare foot ak ay xawma nangam na lépp ay carte la te ku ne xam na ne boo jàngee alxuraan carte ak sàngara ñoo dend xam nga ne carte baaxul ti day indi musiba day indi balaa day indi gàtt fan day indi déegu ñaaw carte baaxul lépp loo ci am baaxul te foo tourné yaa gis benn kees boo xam ne dañ fay carte xaalis est-ce que gis nga benn kilifa diine boo xam ne te directeur bi nga xam ne moo yore carte googu kilifa diine bu mu demoon mu recevoir ko directeur xam ne moo jiite carte googu kilifa diine bu mu demoon mu recevoir ko mu génn ci xaalis carte boobu jox kilifa diine boobu kilifa diine boobu day jël pour lan waxu leen ci te ku ci waxul boo faatoo di nga wax ak yàlla suñu borom damaa bëgg rek ngeen ñëpp ngeen bañ a wax ay affaire farfar ñu wax suñu conscience tranquille yéen ñëpp ku ci nekk lii may wax nii dugal sa biir néeg yow kese nga toog nga déglu ko di nga xam ne li ma lay wax dëgg la beneen ponk bi ci tegu muy njaaloo bi nga xam ne dafa wër Sénégal ndax ku ne xam na ne boo demee dëkk yu mag yi nii da dem gis xale bu jigéen taxaw ci digg télé bi di jaay boppam ñëpp xam ne loolu am na nga taxaw ci digg télé bi di jaay sa bopp boo taxee di jaay sa bopp police ñëw fekk la fa looy def fii. li mu lay njëkk a laaj mooy an sa carnet an sa carte bi nga yore carte boobu lan la maanaam dan la koy jox pour bu police ñëwee nga won ko ko da ngay dem jënd ko bu police ñëwee nga won ko ko mu bàyyi la nga taxaw ci dëgg télé bi di jaay sa bopp boo amul carte bu jël yóbbu la fay loola 3000 wala 5000 moo tax da ngay dégg ñiy jaay seen bopp dañuy taxaw ne man am naa carte waaw xool leen Sénégal dëkk boo xam ne nee nañ dëkku diine la ak njaaloo ni mu bone ak mooy yàlla ni mu bone ak yu sax jàpp koo xam ne du sax yàlla ci boppam nee na bu leen jege njaalo waxul bu leen ko def bu leen ko jege léegi nga favoriser ay jigéen ñu taxaw ci digg tali bi di jaay seen bopp nga jox leen benn carte xaalis boobu fan la jëm carte boobu xaalis boobu ñuy jox ba nga xam ne moom ngay jënd carte bi ngay jaay sa bopp ndax nee na la baar yi dañoo am licence da nga koy jënd xaalis bu bëri te loolu ci xa ci nguur gi la jëm nga euh, jigéen ñi taxaw di jaay seen bopp xaalis boobu ci nguur gi la jëm léegi nag xaalis boobu la ñuy dajale di ko fay fonctionnaire yi moo tax fonctionnaire yi xaalis bi ñu war a fayee ko amul barke ku ci fayee ko rek da ngay xool weer day dee sax du ñemee dem fayee ko ci ndax xaalis bi leen fay amul barke ndax xaalis bu baax boo ko boolee xaalis bu bon xaalis bu baax bu bon bi day lakk xaalis bu baax bi léegi nag xaalis bi nga xam ne jël nañ ko dajale ko mu mu ci carte bii ñu jël ko dajale ko mu jóge ci licence yi nga xam ne moom la ñu jaay borom baar yi bii nga xam ne jël nañ ko ci jigéen ñi ñi nga xam ne ñooy taxaw ci mbedd mi di jaay seen bopp te ku ne xam na ne loolu dafa bari ci biir dëkk bi léegi xaalis boobu ngay dajale nga dolli ko ci xaalis bi nga xam ne ne nga xaalis bu baax la léegi nag nga jox ko fonctionnaire ñu fayee ko moo tax fonctionnaire bu ci fayee ko maanaam bala moo àgg këram xaalisam jeex na koo ci gis ma ngay jàmbat te it gars yi ñun ñi nga xam ne dañuy faj am na feebar yu bëri yoo xam ne ci loolu la jóge da gis ni ko xam ne dafay neewi gis nga koo xam ne dara du ko métti du xam li ko dal da ngay dégg koo xam ne lu ma yaakaar mu tas lu ma dugg mu yàqu te loolu lépp bàkkaar yi bon yi ndax yàlla am na ful la joo xam ne su fekkee da ngaa def li la neex ba am moom mu def moom mu def li ko neex bala nga am doo ko jëriñoo nga gis ko fayee ko un boo gisee yërëm ko nga gis ko fayee ko cinq cent mille boo ko gisee yërëm ko ndax lan la yàlla ci boppam moom am na ful la joo xam ne soo amee ful la ba def ay euh, lu bon ba di ko jëfandikoo moom day am fulla ba lu bon loolu nga def noonu doo ko mën a jëriñoo kon mbokk yi yéen yéen borom xam yi laay waxal yéen ñëpp muy Bamba Ndiaye mi nga xam ne yow yaa génne coow lii ba tax weeru koor wi kenn talatul yàlla dama lay ñaan nga dugg sa biir de nga toog jéggalu yàlla suñu borom te juum nga juumloo nga ñu bare bare bare bare bare ñaata kilifa ñoo génn wax te tey boo leen joxaatal micro du ñu waxaat ñaata kilifa tey ñoo génn wax li ma ci gën a metti nag man taalibe sëñ Bàmba la waaye dama bëgg maam Alaaji Malick dama bëgg Tijaani lool lool lool lool tey sëñ Mbay Si Mansuur tey lu ma santoon dinaa ko def ci lu jëm ci yàlla ndax yaakaar naa li may sant ak li ma sëñ Saliou sant ak li ma sëñ Muntaxa di sant benn la waaye wax dëgg yàlla dugal nañ ko ci taw lii man su ma sañoon man bu doon sama waajur la du ci dugg te sama waajur la su kon mën naa ci moom dara du ci dugg ndax ñoom seen warugar mooy fay coow ñoom seen warugar mooy wëlbati doomu aadama yi ñoom seen warugar mooy jubati doomu aadama yi waaye ñii nga xam ne ñooy politique am na sëriñ soo xam ne politique rek moo leen ñor ñooñu nag yàq doom dañoo yàq ba pare bëgg a yàq ay doomu aadama mbokk yi yàlla kenn mënu koo nax ndax nee naa la alxuraan ji am na ñoo xam ne dañ koo jàng ba mu dugg seen yaram waaye ñoo gën a bon iblis ndax soo seetee iblis bi nga xam ne fu ñu ko tuddee dañ ko war a muslu kuy jàng moom ngay dimbali kuy jàmm yàlla iblis mënoo daq jaamu yàlla moo gën a xam yàlla waaye rëy ak far ak ak bañ a topp ndigal moo tax lii ko dal dal ko kon na képp koo xam ne jàng ci iblis yi doomu iblis yaa ngi fi sëtam yaa ngi taalibeem yaa ngi kon mbokk yi wëlbatikuwaat leen ñu delluwaat ci yàlla suñu borom te ñi nga xam ne wax nañ ci coow li yëpp ku ci nekk na dugg sa biir ne nga tuub ndax même bu fekkoon lii am na sax mënoon nañoo bàyyi ba weer bii jeex ndax weeru yërmande la weer la boo xam ne weeru jéggalu la kon mbokk yi loolu lañ ci doon waxtaane xam ne daal borom xam-xam yi nekk Sénégal juum nañu nañ delluwaat ci yàlla di jéggalu ci kàttanu yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla jéggal ñun ñëpp te liñ fi wax yëpp yàlla ñu yàlla baal yàlla yàlla wërbati lépp ñu jubluwaat ci yàlla suñu borom allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou